asalaamaaleykum félicitations monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement d'avoir gagné la confiance du président pour vous remettre à la tête de ce département monsieur le ministre ce que les, les Sénégalais attendent de vous ce n'est pas à attaquer maître Abdoulaye Wade l'ancien président de la République il faut que je le dise personne n'y peut rien Abdoulaye Wade mooy sama rab ku ko way ma daanu monsieur le ministre Monsieur le ministre, le premier poste ministériel du président Macky Sall dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade, c'est l'hydraulique. C'est un c'est juste un rappel. Monsieur le ministre, Wade le visionnaire, Wade l'intègre, Wade l'ambitieux, Wade le digne fils Walo Walo, qui a fait, qui pendant 27 ans et gouverné ce pays pendant, pendant 12 ans. Et je bien que il pouvait être faire comme les autres présidents. Il est là, il dort dans la capitale du Sénégal. Donc c'est un bon Sénégalais qui aime les Sénégalais. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, je crois que la solution de l'eau, c'est pas Wade. La solution de l'eau, c'est de lutter pour la diminution de la cherté des factures que se lamentent, que lamentent les Sénégalais. Monsieur le ministre, je crois que la cherté de l'eau, ce n'est pas Wade. La sécurité de l'eau, c'est d'avoir le courage, de prendre votre courage à deux mais pour offrir aux Sénégalais une quantité suffisante en eau. Monsieur le ministre, je crois que la solution de l'eau, ce n'est pas Wad. Il faut faire tout pour que les Sénégalais aient une eau incolore, inodore et sans saveur. C'est ce que les Sénégalais attendent de vous. Monsieur le ministre, je crois que lorsque le président Wade quittait le pays, en 2000, il y avait il y avait 927 forages. Lorsqu'il quittait le pays, il, y a, il a laissé 1480 forages. Monsieur le ministre, lorsque Wad prenait le, le, pouvoir en 2000, il y avait 200, 2500 localités qui avaient de l'eau. Lorsqu'il quittait le pouvoir, il y avait 6500 localités qui se sont bénéficiées d'eau. Pour ne citer que cela. Monsieur le ministre, il y a des gens qui parlent de l'homme grand Euh, moulin euh, forage ce que Wade à fait lorsqu'il la pris le pays l'homme au grand théâtre l'homme à la euh, au monument africain l'homme de la case des tout-petits pour élever les enfants à bas âge l'homme de, de l'autoroute à péage l'homme qui a tout fait pour relever la situation sociale des fonctionnaires de ce pays on dit Madame Moulin moi je dirais Madame Néné Foucha Madame Wade Monsieur le, Monsieur le ministre, je crois que Ablaye Wade dafa am jom am jom mooy xam fi nga jóge xam fi nga jëm xam li ngay wut ak ni nga koy amee ñaar fukki at ak juróom-ñaar lu ne daj nañ ko waxuma la moom mais ñun nii lu ne nañ ñu ko yorul pantalon ak vestam ak karawaatam rek président bu falu ne la eh le ministre donc ku ñu war a warmaal la nag parce que nag ku bëgg ñu warmaal sa wayjur da ngay warmaal wayjuru jaamur Ablaye Wade il appartient au passé politiquement wutatul dara wutatul président wutatul dara donc war nañ ko war maal ma wax nag ni dégg naa ñuy wax 3 milliards waaye dama ne 3 milliards 138 milliards 45 milliards de Singapour œuf c'est non fondé du mujj fen monsieur le ministre wax naa ni j'ai mes questions yaa Rokhaya Diouf l'honorable Rokhaya Diouf nee na waa ONAS dañoo ñëwoon ci moom en 2019 ne ko ils vont commencer les travaux dellu si waat fa 2020 ne ko sous peu de temps boobu ba léegi gisul dara muy laaj quand est-ce que ces travaux vont commencer. monsieur le ministre maa ngi nuyu ñëpp di wax ne réew mi jàmm lañ fi bëgg ku fi bëgg jàmm nag ci sama kanam man sama bakkan laa ci teg du ma dem kër yaa ma di tax ca maccante ba ku bëgg sa soos neex rek il faut nga mottalee ko Ablaye Wade bàyyi leen Ablaye Wade ngir yàlla sarx leen góor gi mu noppalu mënoon fii. li li ñuy souffrir mu ngi koy souffrir te moom du leen tudd mu ngi toog mag la xam na ne mag la yàllaa ko joxoon réew mi en 2000 jël na ko en 2012 d'accord nañ ci ki ko jël doomam la moo ko jàngal baa moo ko defal lépp ba mu doon président d'accord nañ ci yàlla mooy joxe cër jox na ko ko de grâce laissez Ablaye Wade dormir tranquillement chez lui keroog bi nga ko waxee rek micro-trottoir li réew mi wax tax na ku meroon sax sa mer wàcc na yow nag foo dem toj ko jox nañ le ministère Euh, euh, euh, jox nañ la enseignement supérieur nga toj ko étudiants yi xeex ak a gréw ñu yóbbu la enseignement yi jàngalekat yi ne jotuñu seen i pen seen i salaire jotuñu seeni avancement ñu indi la ci ndox mi. nga toj ko rajax ndax Ablaye Wade mu nga tudd bàyyi leen Ablaye Wade. je vous remercie. auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum président maa ngi lay nuyu monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateurs yi di nuyu sama bu député yi euh, monsieur le ministre jàpp naa ne yow dafa mel ni xamoo li xew wala da nga ñëw rek bëgg lu neex président Macky sàll ba tax ngay attaqué président lay Wade te jàpp naa loolu soo ko defee war nga war na naqari président Macky Sall ndax li waral mu war koo naqari mooy bi ñuy falu 2000 président Macky Sall benn bëgg-bëgg rek la amoon moo nekkoon nekk directeur sénéral adjoint bu ICS yàlla dogal post boobu ñu supprimer ko amatul président Wade nommé ko yóbbu ko directeur Petrosen président Ablaye Wade 2002 mu jël ko dénk ko ndox mii nga yor tey kon ndox mi boo amee bu fekkee ña fi jiitu woon liggéeyuñ ci liggéey bu baax kon neel président Macky Sall moo ko def ndax 2002 moom la wóolu woon dénk ko ndox mi yëmul ak moom foofu yóbbu ko ministre de l'intérieur plan Orsec fa la ne assainissement lan la fa def yëmutal ak moom foofu 2004 mu def ko premier ministre 2004 ba 2007 mu jiite gouvernement bu Ablaye Wade kooku kan moo ko ëpp wàll ci li jàlloon 2000 2007 euh, mu def ko président assemblée nationale ba 2009 2009 2012 mu nekk président kon 20 ans yi 20 ans yi vingt ans yii kenn ëppale wu ci Macky Sall lu ñu fi def su fekkee lu baax la loxoom a nga ci biir bu fekkee lu bon la loxoom a nga ci biir loolu laa bëgg ngeen xam ko ndax régime ba jàlloon moom la woon moo ñëwaat si miwaat mbub mi nekkaat président mais benn bi la kon moytu leen di xarab régime bi jàlloon ndax régime bi jàlloon Macky Sall da caa bari lool wàll yow nag yow bu la neexee mun nga wax ndax yow 40 ans defu leen fi tous président Macky Sall li ñëw def erreur dénk la njàng mi nga échec ci njàng mi yëmatuloo foofu mu wàññeekuwaat dénk la ndox mi nga ñëw bi nga ñëwee xam nga ne pax nga fi fekk ndax goram moo ko yoroon ci defu fi woon dara danga waroon a am fitu ne ko sa goro bi nga joxoon ndox mi liggéeyu fa dara mais nga ñëw di attaqué Ablaye Wade jàpp naa loolu du sa cër monsieur le ministre fi may ñëw mooy ci wàllu seen plan décennal bi programme décennal bi ndax gis nañu ne xaalis boobu dafa dafa tasaaroo fi mu waroon a dugg dugg fa ci ay poste rek la dugg ndax mënuma d'accord 506 milliards 714 ngeen ne dépassé ngeen ko ci assainissement ci kenn gisul tous réew mi foo jaar tey la inondation yi gën a bari man dama jàpp ne sax président bu fekkoonte ne kuy analyse wala kuy xool la tey directeur de l'ONAS ONAS moom warul warul warul woon a taxaw moom da ko waroon a dàq moom rapport bi mu ko gisee rek warul woon a xaar moom da ko waroon a dàq sans wut ko neen ma gis ne boo jëlee tey lu mel ni Touba wàllu assainissement 181 millions ndaamaatu ci loo xamante ne as diggante su tuuti la 181 millions Guédé boori kër Cheikh Bass diggante su tuuti 7 milliards et quelques pour Touba ah waay waay monsieur le ministre xoolaat leen mbir mi caaxaan yi bari na de parce que xaalis bi leer na leen ne duggul foofu duggul Touba wut leen ay war na nun sax assemblée nationale war dañoo demande d'enquête parlementaire pour ñu xool affaire ONAS parce que aussi chiffres yi ngeen di tudd bari na trop ndax 506 milliards 714 ah ci 766 milliards yi presque yéen lépp génn na te defu leen fi lenn loo xam ne mën nañ see teg baaraam ah boo jëlee tey tuuba nga jël Kaolack 15 milliards yéen dal ay chiffres rek ngeen di joxe mais boo demee si le terrain la nga fay gis du doon tus ma jàpp ne monsieur le ministre jot na ah, en tout cas yow moom boo gisee sax ngay xalamal président Macky Sall moom jàpp naa la tax mooy boo desee tey ci nguur gi doonatul. Euh, euh, sa mbokk yi du ñoom ñoo la fi téyeeti waaye jàpp naa président Macky Sall moo la fi téye ndax tey jii ñëpp xam nañ ne ñaari PS moo am PS aminta Aminata Mbengue Ndiaye ak PS su Sëñ kon dama jàpp ne sa collègue yi sax bu ñu lay bu ñu lay sant bu ñu lay sant dama jàpp ne li nga des ci nguur gee tax waaye boo dikkaatul woon duñ la sant ndax commencé woon nañ la ñoom di tiire ci sa kaw boo desee ci nguur gi Macky Sall wasalaamaaleykum wa rahmatullah.